asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internautes yi maa ngi am mbégte ak contentement bu mag ci li nga xam ne moom laay ñëw pour waxtaan ak yéen yaakaar naa ne sénégalais bu nekk am nga ci religion boo nekk ñu xamee ma ci religion musulmane di am baay jullit ndey jullit man ma ñëw ñettal leen di ab jullit ab jullit nag bu bëggee li ñuy wax ñu gëm ko dafay waat ci li nga xam ne moom lay wax ne dëgg la ma yëkkati sama loxo di waat ne billaahi wallaahi wa lii may wax nii dëgg la amul benn yoon ba ma jël sama kàddu déplacé wu dem ci fi ñuy déposé pour tekki sama ndombo ci TFM amul liñ bind ci weekend bi ak ci internet bi yëpp amul benn yoon ab journaliste bu wax ma àddu ci li muy laaj ma tontu ko ci amul ñoom kat ñoo gis seen ay yoon bind ko waaye loolu dama koy ñaawlu ndax rafetalu ma ko di ko waral mooy yaakaar naa ne nit ñi war nañoo yeewu ci presse en ligne lu tax ñu ciy war a yeewu mooy bu fekkee ni dañuy bind nit loo xam ne dañ ciy laam-laamee te gisoo jëmm nit ki wax ko déggoo kàddoom amoo preuve boo xam ne lii ñuy bind nii waa ñu koy bindal moo wax nga dégg yaakaar naa ne des na koy laam-laamee mais man ku ca li ma leen bëgg jàppal mooy ngeen xam ko. mooy maa ngi jéggalu ci yéex bay génn pour leeral waaye tamit di jéggal ñi nga xam ne jot na cee jot na cee bàkkaar parce que nit kii bu fekkee dañ jox information boo xam ne dañ ko def ci presse en ligne day am ay commentaire te commentaire nag di nga ci dégg ñoo xam ne dañ la wax loo warul wax ba bàkkaar ci ndax yow waxoo may lancer en appel ñi nga xam ne ñu nekk ci presse en ligne te mënuñu métier bi xamuñu ko nañ ci génn ndax kat am na information yoo xam ne boo ko joxee dafa war a nekk ci éthique ak déontologie fexe ba kii nga xam ne moom ngay joxe information bi nga am ci ay preuve yu leer nañ bu ëllëg la nga waxoon bu amee dañ naan ah waa ji pourtant waxoon na ko nii la demee waaye dem ba ci biir naan dama ci amoon ay laam-laamee dañ ma ko waxoon loolu du ab xibaar bu wóor presse en ligne métier bu noble la ndax réseaux sociaux doole gi mu am télévision amuñ ko rajo amatuñ ko kon lu ci nit di wax na ko wax loo xam ne ëllëg mu nekk référence bu njëkk baan danga daan dégg ñu ne xibaar am na foo ko déggee ñu ne RFI ñu ne France Inter lu mu wax dëgg la ñu dem ba jëmmi jamono information boo ko mosaan dégg ñu ne fu ñu ko déggee ñu ne ca Walfadjri ñu ne àkkonde ah am na bu ñu demee nag ba rajo yi bari ba tele yu bëri ba site internet yu bëri war nañoo mën a wax nag tey lu ñu déggati ñu ne foo ko déggee ñu ne presse en ligne ñu ne dëgg la parce que lu ñu wax dëgg la léegi nag xamatul kiy wax dëgg ak wax dëgg bu benn site bindee ñëpp reprendre sa àddina bi mel na luy waaj tukki ci loo xam ne xëy na lu ñaaw lañ la bind loo xam ne amuñ ci preuve may feddale nit ñi ne man bés bu ma naroon bàyyi damay toog woo presse sénégalaise ne man de lii moo a naqari TFM lii moom ma neexul TFM maa ngi tekk sama ndongu tànk dem mais ba jënt may wax ak yéen nii gisuma lu tax man ma war a def déclaration parce que maa ngi xëy di liggéey si boobu ba tey kon nag bu ñuy bind nañu bind loo xam ne nit ki. dafa cee wax ba pare ñu koy soog a bind may baale di baalu àq nag ci li ma yéex a wax ndax xam naa ne am nay soppe yoo xam ne bu ñu xamee qualité nit ki xam jikko nit ki luñ la bind ci loo xam ne lu ñaaw la safaan ba dañuy taxaw ne loolu amul ndax diw melu noonu waaye am na ñoo xam ne yàkkamti na ñu bind la dara ñu ne noonu la mel bettu kii xamu leen ko moo nekk ci ginnaaw moo bëgg ko woo dafa bëgg a dem tappalekat la nii lay def may giñ ci alxuraanu karim bi ñu yaakaar tey ëllëg mom lañ fi bàyyi moom lañ fekk fële ne barki sayidina muhammad waxuma ci ginaaw internet yëgluwuma waxuma lam laamlaayewuma nekkul sama xel maa ngi tey ba tay may wax yéen maa ngi xëy ci groupe Futurs media di liggey ci télé bi di liggey ci radio bi ak sama équipe gisuñu dara lutax ñu wara dem ndax ba tay ñu ngi liggey bu dem waree am nak ni may waxé ak yéen mu leer non lay tok ak sénégalais jakkal ak ñom naan ah wax deug yàlla jot na pour ma dem man nag fi ma toll nii damay ñaan yàlla amal sama bopp lu ma moomal sama bopp boo xam ne damay xéel sama bopp ànd ak sama njaboot ak ñi ma nekkal que dem di defaat leneen loo xam ne damay toppaat ci ginnaaw bi man sama wax lay leer waaye yàlla moom bind de say doomu aadama mën nga bëgg dara yàlla sama ko li yàlla def sama xel ak li ma bëgg mooy amal sama bopp sama mbir bopp bu ko yàlla dafay bu yàlla dogalul nag ma am leneen loo xam ne war naa ko wax boobaa damay am fula gu mot gu ñëw jàkkaarloo yéen naan ah mbokk yi kat fii ma nekk ni gis suma sama bopp maa ngi dem fee waaye li nekk sama xel ma wax dëgg yàlla amal sama yëfu bopp boobaa doo dem di jaayi sa li nga am sa mën-mën ci keneen bi koy jënd di la ci fay weer bu ne ndax nit ku nekk sama moom a gënal suñu kon mbokk yi ñu jot a wax ak wax ju ñaaw ci moo nekk ci ginnaaw presse bi nii la mel ak jikkoom baal naa leen waaye tamit maa ngi baalu àq ci ndax yéex wax bi tax na tamit ko bëri xeex na ci war a xuloo na ci melul noonu ku caa lii du jikkoom jikkoom la may jéggalu nit ñi di jéggale ñaan yàlla jéggal tey nag lancé waat appel ci presse à la ligne mm-hmm. di leen xamal ne na ñu xoolaat bu baax c'est pas trop tard pour certifier ku ci bokkul nañ la ci génne ñi ci bokk nañ leen ci bàyyi ndax métier da koy jàng presque à ligne buñ ko xep ëllëg musiba mun naa am ñu wax ko nit ñi duñ ko jël à la au sérieux jël ko à ba mu dal suñ kaw mm-hmm. nañu segg ñu ci bokkul xaw ma dañ koo yombal nit ñi ba nga xam ne kenn ku nekk am nga sa sit boo xam ne dangay ngay waxal lu bëgg li nga xam ne moom mooy ay visibilité ak commentaire yu bëri si sa site mu tax ngay xool ki gën a dox nga koy def noonu loolu baaxul waroon nañ xaar ba ma génn wax ñu soog a bind waaye ku caa wax na ku caa déposé na ku caa dem na dara amu ci ku ma gëm nag gëm nga ma ku ma gëmul tamit yàlla xam ne li nekk sama xel ak sama xol asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi maa leen di gërëm di sant di leen jox dox daje. ci beneen gise boo xam ne xëy na day nekk gise jàmm rek waaye di yéene yëpp jàmm di wax nag ñu dëkk di wax ak astafurlaa parce que tooñ baaxul te kuy tooñ mooy ki xamul li xew bay bind lu xew te loolu dara xewul mm-hmm. yan yàlla defal jàmm ñuy xew ci jàmm ñuy bindal jàmm ñuy gis jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah